illégalement ginnaaw bu mu jógee bitim réew. ba tax na bu ñu sukkandiku ci li nga xamante bind nako ci page Facebook am mu ne plus de 1 million six cent francs CFA ci waxtu kessé waxtu kessé lañu tambalé tàmbalee. am nañu li ni mel ngir rek bëgg dem campagne ginnaaw bi nga xamante ne am na lu jiitu woon loolu waaye bàyyi leen xel Birame Souleye dafa am kàddu yoo xamante waxon nako ci assemblée nationale ak député Pastef yépp ak Ayib dafé moy 240 millions francs CFA ci 2023 mille yi moom Pastef génne ko ko ci ay dépenses ci ay prisonniers yo xamante ne ñoo leen yoral seen lekk ci ay blessés ci ay ño xamante dañu am tawat ginnaaw bi leen faagaagalee ci manifestation ñu yóbbu leen bitim réew di leen fajj kon passif moy ki nga xamante projet bi mu am bis buñ ko ci jappalé bañu ñu ba ci ci ndaw ga Sénégal yi dinañ bëgg té xamné projet bi moy li sukkali Sénégal moy projet bi nga xamante mo gën ci askan bi moy projet bi nga xamante bu ñëwé day jubolé justice bi ak. ndaw yi askan bi ak sénégalais yi mooy projet bi nga xamante ni bu ñëwee bépp magistrat da nga tëddee njaaxaanaay képp ku doon sàcc ak luubal di corruption ak guerre ak ñi ñu épinglé téye leen ak loi d'amnistie bii nga xamante ne voté ngoon voté nañ ko ci doole loolee lépp dana mën a saafaru kon mbokk yi yéen ñi nga xamante ne ay patriote ngeen te patriote tekkiwul ne da ngaa jënd quatre membres Pastef kese ngay patriote déedéet patriote moy ki bëgg réewam ki nga xamanteni ne day xeex guerre ak corruption yéré politique bu radical nga xamné ne day am endurance ak patience du sàcc du fen té lépp lo xamné Sénégal ci boppam moy bien moy am am moy léppam da koy sauvegarder ba kenn ci boppam du ko mëna a détourner ci yenn futilité divertissement yeeg yi nga xamanté dañ koy def pour bëgg rek projet bi yàqu Sénégalais yi ci boppam dem nañ ba xamné Ousmane Sonko moy ki baax ci ñom ci wàllu politique lolé nak ku ko bëgg moo am ku ko bañ Ousmane Sonko taal na xel yi.